lan ngeen voilà euh, dem nañ gis euh, sëriñ Mountakha en même temps bi ñu jógee foofu noonu dem nañ la gis sëriñ Maye Niass euh, li nga xam ne moom la ñu waxtaanee ñoom mooy situation université bi ak crise bi nga xam ne ñu ngi koy dund. Mm. ak injuste mesure injuste yi nga xam ne bëgg nañ ñu ko forcer. Mm. donc gis nañ leen waxtaan nañ ci ñoom ñoom aussi li ñu mën a xamal mooy lépp ñu ci mën. danañ danañ ko danañ ko ci def. Mm-hmm. donc de ce côté aussi ñun ñu ngi poursuivre li nga xam ne moom mooy suñu plan d' action. Mm-hmm. te comme comme euh, doyen si li mu wax léegi nii. dem gisi le la le ministre tout ça je pense que ñu ngi def ay jéego mm-hmm. peut-être ñu ñun depuis ba ba ba commencé ak léegi képp koo xam ne tey jii war nañu war nañ mën a toog ak yow waxtaan ak yow pour pour pour solution am ñu ngi koy def. Mm-hmm. en commençant même par le recteur et et et le et directeur du COUD. ñun ñoo leen njëkk ci paa paa yooyu noonu. gis ngeen médiateur bi le médiateur gisante nañ ci mais après la décision la te ñun ah, dañ dañ anticiper woon ci loolu lépp parce que crise bi bi mu commencé bi bi événement yi amee ba pare. ñun ñun ci liñ njëkk woon mooy fe commencé di leen démarcher pour que ñu toog ensemble xam yan yan mesure la ñu war a teg pour mën a dellu si euh, pour université bi jàmm dellu si waat étudiants yi mën a ñëw regagner regagner salle yi def cours mais volonté boobu noonu ñu am bu fekkoon autorité yi nga xam ne ñoom ñoo war ñoo ko waroon am en premier lieu amoon nañ ko je pense que duñ egg si à ce mais ñoom ñoo ko amoon mmh. parce que la le le directeur le le le le recteur bi bi bi ñu jëlee dogal bi pare bopp la ñu doog doog a recevoir bi ñu recevoir aussi les arguments yi nga xam ne il est vocal euh, si il est vocal bi bi ñu ko kii argument yi mu jé jéem a jéem a teg wax nañ ko li nga xam ne argument yi nga xam ne moom lañ moom lañ moom lañ teg sur sur la place li nga xam ne moom moo tax ñu bañ ko mm-hmm. en même même temps aussi ñëw nañ ci ay proposition de solution mais ces propositions de solution la moom bëgg ko déglu donc ki nga xam ne tey yow yaa ngi waxtaan ak moom bëgg solution te moom mu campé ci ci ci ci ci ci li nga xam ne moom la jàpp je pense que kooku bëggul solution am. chasse aux sorcières am na université wala amul après les incidents dañu wax ni ñenn étudiants yi xaw fës ci wàllum revendication wàllum ñaxtu surtout nag féete ci côté ku jigi boobu ba léegi daal ñu ngi jàpp di. def effectivement am na ñoo xam ne jàpp nañ leen ci te te ñu koy ñu koy ñaawlu parce que anam yi nga xam ne moom la ñu moom la war a def defuñu ko parce que yaakaar naa yenn yi bu amee ñun ñëpp li nga xam ne moom moo war mooy ñaawlu ko hmm. parce que nekk na loo xam ne rafetul ci université te mësuñ ko fa gis léegi nag loolu bu amee je pense que li li li war a am mooy ñu ñu def une enquête Euh, ba situer les responsables de ñi nga xam ne ñoom ñoo ci impliqué wu ñu jël ñu ñu ñu jël leen mais pas euh, pas aussi euh, dem di di taxal ñoo xam ñoo xam ne taxawuñ ci laalawuñ ci amuñ ci benn benn preuve ci ñoom que ñoom ñoom ñoom ñoo ko def ñu bëgg leen bëgg leen a jàpp ñuy ay innocent ñu bëgg leen teg teg loo xam ne du loolu la du du ñoom ñoo ko def. ok je pense que la vraie la vraie chose qui devait être faite mooy ñu dem def enquête. xam ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ko def. les vrais responsables voilà les vrais ñu répondre à la hauteur de leur actes.